ñëpp gis nañu tournée bu ñu defoon ci biir Dakar euh, dem ci banlieue bi dem ci goxu Dakar yëpp fekki askan bi pour dolli sensibilisation pour respect des mesures barrières mais surtout également pour nit ñi dem vacciner wu. xam ngeen ko yéen presse bi yéen a ngi fa woon am na ñu jëloon kàddu ñu ni ñoom bëgg nañu waaye dañu bëgg ñu yokk euh, vaccin yi quantité bi. fii may euh, commencer par remercier gouverneur u Dakar si taxawaayam. Euh, di aussi jël remerciement ak gërëm bu mag boo xamante ne membre wu CRGE yëpp laa koy jox teg ko si loxoom mu jox leen ko parce que tey xam nañ ne vaccination dafa bokk si li war a arrêté virus bi surtout variant delta bi variant delta bi mi ngi ñëw di ñëw bu baax mais il faut que ñu gaaw ya gaawal vaccination bi fexe ba euh, donc euh, bu ñu vacciner le plus de Sénégalais bu ko defee variant bi dana mën a donc bloqué wu. loolu egg ci nopp ministre de la santé egg ci mu egg ci président public ministre bi jël décision bu rëy mu ni léegi dana indi vaccin yu bëri jagleel ko dakaar ma leen di xamal ni démb ci guddi. Euh, bi nga xamee ni ministre réceptionné na dose yi ca ca ca aéroport ba jox na région médical bu dakaar quantité bu bëri sant ñu nag nii comme jox nañu quantité bu bëre nañu accélérer opération yi mënuñu kon nañu ko defal ay postes avancés de vaccination postes yooyu bii ñu taxaw nii ci la bokk. am na yeneen ci biir Dakar da ngeen ko gis gis ngeen population bi. désengorger poste de santé yi centre de santé yi. de site accessible jege population bi ba nga xam ni képp ku ñëw pour vacciner wu dina leen la mën a vacciner ci jàmm ak salaam nga dellu ci jàmm ak salaam. kon daal ñuy gërëm bu baax di sant bu baax euh, ministre de la santé ci initiative bu rafet bi. si loolu la ñu nekk moo tax ma ne woon euh, gouverneur Dakar euh, danaa ñëw xool li Dakar def pour que yeneen régions yi peut-être surtout Thiès man si donc xool mën ko def parce que tey li ñu leen demandé mooy conformément. ak euh, ñoom yi xamante ne moom la ñu xalaatoon ba yaakaar ne dana rafetal liggéey bi ñu ubbi ay point yoo xamante ne dañ fay vacciner mais point yoo xamante du doon district bi doon centre de santé comme fii tey ñu ngi ci place de la nation mu nekk donc euh, point boo xamante ne dafiy des encore ay fan pour permettre population yi jege fii yëpp ñu ñëw vacciné wu mais bu ñu jógee fii itam am na yeneen point ñu dem visiter kon nag district yi ngi def seen liggéey mais gouverneur war yor na beneen dispositif de proximité bu koy permettre vraiment donc mu ñu gën a gaawal baral liggéey bi si wàllu vaccination bu koy félicité si wàllu vaccin rek am na lu ñu si jot démb lu takku jot nañ effectivement trois plus de trois cent mille doses de Sinopharm ak cent cinquante et mille doses deux cent de Johnson and Johnson te loolu day continuer parce que courant mois d'août yaakaar nañ ne jot sax lu ëpp million de doses bon donc vaccination bi dañ koy accélérer te loolu la ñu président la république donc dénk santé Euh, daf na aussi lu ñu mën a def rek pour indi ay doses ñu continuer ko def am nañ si yaakaar lool. lu ñu demande rek mooy population yi non seulement ñu respecter mesures barrières yi mais ñu ñëw vacciner wu en masse parce que fi réew mi toll actuellement dañu war a taxaw pour que véritablement virus bi ñu génn ko si réew mi surtout forme variant delta bi xamante ne seetlu nañ ne mi ngi sonal nit ñi bu baax.